tàmbalee ci yàlla day war ab jullit saa su ne saa yu bëggee wax mbaa jëf bismillaahi lay wax ni ndem wax naa ko la ca topp mooy julli ci yonent bi ak ñoñam ak i saabaam ak i doon yonent bi xaadima rasul la tudd mbàkke moo di ahmadu maa ngi ko naan jaajëfati moom mi ma tuddee ahmadu kullu naa junnu dihi aw junuduhu noo di ay soldaaram ñi meeg dëgër tey moytu tooñ moo war soldaaram noo si ñëwoon pactu soldaar ca kanam sëriñ Saliou nan ko ñemee te doon ay gor sunu digg ak sëriñ Saliou ndax noo ko ne woon dañuy jàppe suñu bopp ni jëy suñ ba demoon Badar loolu moo waral jëy suñ moo waral diiwaanu silku jawahir fi akhbaari Saraaya te ñooñe dañu daan dagg seeni bopp su dee dem àjjana te fii kenn daggul suñuy bopp lu mat a bàyyi xel la yii fii jaar yëpp ak yi ñuy wax yëpp maanaam dara du ci dara lii dara mooy fas yéene dool sëriñ soldats yi Sëriñ Touba par la non violence loolu rek dara mënoon ni da toppandoo jàmbaar yi woon ca Badar te ñoom ñu daan dagg seeni bopp di sànni fa Badar te kenn daggul sa bopp lu dul di la bunduxataal kon kay da ngaa war a sant boo yemee ci bunduxataal sama gaañ yi nañ leen gore jaayante duy caaxaan loo gis mu ñëw dafay jàll bu yendoo it du fa naan ku ñu jàpp mbaa ku ñu raje te nga yaakaar xadimu rasul cant gu rëy la war a doon hmm? ku ñu jàpp mbaa raje te nga yaakaar xaadima rasul cant gu rëy la war a doon waaw ndax yàggam xaadima rasul man de dama leen ñee ci seeni daraja yu kawe yii waaw cey ku xamoon yéen ñan sàkku ci yéen daraja yii yàlla na ko tedd ki def bu ëllëgee yowmal xiyaam mu jéggal ñu leen di bundu xataal waaw ki xamul faaw mu jum salaamu alaa man ittaba'a al-huda